asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV mbokk yi daleen si jàmm si kër gi su ko defee ñu ànd ak yéen ci xibaaru bés bi ngeen daan ak seen doomu ne ci bopp xibaar yi mbokk yi dinañ dem seeta ji Fabakary Tombong Jatta mi jiite APRC yi ci démba jàkkaarloo ba nga xam ne jot nañ ko am taskat xibaar yi foofu nag wane na ne ne nag euh, justice minister bi di Aboubacar Tambadou jërëm bi ñu denk wàllu waay ci réew mi kooku dafa war a tekki ab na mal tànkam ndaxte gàcce rek la teg nguuru Gambia mbokk yi Gambia am forces nag ñoom it tamit tàmbali nañ <clears throat> ab ndimbal boo xam ne ñu ngi koy def askanu réew mi rawatina ci lopitaan yi ginnaaw bi nga xam ne nag ñu ngi jël ay deret nag di ko maye pour nag ñu mun a sàmm wala boog muccal ay bakkanu doomu adama ci nga xam ne soxla nañ wala bokk seen i deret yi manqué nañ ci lopitaan bi mboo koy ci wàllu tàggat yaram dinañ dem sedd ji Idrissa Sonko mi nga ne nag Gambian international la woon maanaam doomu réew Gambien la te mu nekkoon football la moom nag fu mu toll nii am na benn contrat euh, benn at contrat xam ne nag ñu ko ko jox foofu la ca lii euh, mu daal coach foofu benn team boo xam ne mu ngi tudd Al Tahwoun Al Tahwoun na ko xam ne nag ñu ngi wuti euh, first division promotion nag ba na nag léegi am nañ yaakaar ne daal Gambian international bi moom moo leen mun a àggale nag ci lii di division booba mbokk yi ci xibaaru bitti réew yi seeti ji foofule ca lii di Central Africa Republic di CAR ñoom nag seen code bi mooy constitutional code bi wane na ne ak jafe-jafe buñ munti am ci réew moom du tax ba ñoom seen mi nag duñ ko amale euh, ren maanaam ci gàttal daal bu dee sax coronavirus dafa am seen réew du tere nag seen i élection bi nag daal di am te opposition bi samay ñu ngi ole oote ne ne bi nag dafa war a am foofa mbokk yi benn tey Afrique nag tund Afrique ci boppam bu ñu ko xaymee yëpp yëpp daal daanaka bu ñu xaymee ñi nga xam ne am nañ jàngo corona bi weesu nañu ñaari téeméeri junne ci ay nit waaye tamit ci loolu lu ëpp junne lu ëpp juróomi junne juróomi téeméeri ci ay nit ñoom ñoo si daal di ñàkk seen i bakkan euh, ci wàllu jàngoro corona bi nag fële ca tund Afrique ci xayma nga xam def nañ ko waaye nag ñi nga xam ne ñoo ci gën a sonn wala ñoo si gën a dee daal mooy réewu Égypte mbokk yi yooyu ak yeneen xibaar daleen si jàmm ñu ànd ak yéen ci faram gi mbokk yi dal leen si jàmm su ko defee ñu tàmbalee xibaar yi ci réew mi rek ñu dem seeti ji interim leader maanaam ku jiiteegum APRC ci parti bi na di Fabakary Tombong moom nag ci ay kàddam wane na daal ne fa moom kii di justice minister Boubacar Tambadou a tekki am na mbal tànkam eh, ci eh, nguur gi kàddu yooyu nag mu ngi ko wax démb ci press conference bi nga xam ne mu ngi ko amal taskat xibaar yi foofu nag andee nañ si ay leeral alalu Yaya Jammeh bi nga xam ne nag ñu ngi ko jëloon ko jaay ci réew mi ba tax na nag of appeal bu Gambie nag daal di joxe ndigal ne daal loolu nag dañ ko ajagum ba si kanam bi am ay gëstu nga xam ko si def mbokk yi dinañ si ànd Seydou Camara mu andi si yaatal ci report boobu. interim party leader bu APRC parti bi mu di Alliance for Patriotic Reorientation and Construction Fabakary Tombong Jatta ni ki démb nag. yëkkati na ay kàddoom jëmale ko ci jëwriñ bi ñu dénk lu aju ci wàllu luwaa yi mu di minister of justice and attorney general di Aboubacar Batambedu moom Fabakary Tombong Jatta nag wax na ne Batambedu dafa war a tekki am ndombal tànkam ci bi ñu ko dénk ci nguur gi kàddu yi nag mu ngi ko wax ci press conference maanaam jaloo bi nga xamante rek APRC parti bi oote nañ ko seen diggante ak taskatu xibaar yi ci këram gu nekk foofu ca diwaanu Talinding lu waral jaloo bi seen diggante ak taskatu xibaar yi nag mooy pour indi ay leeral ci yenn mbir yi nga xamante ne parti bi ñu ngi say yëngu fii ci biir réew mi APRC nag seen nguur gi fi nekkoon jiite woon ko di former président bi mu di Jammeh am nañ lu toll ci ñaar fukket ak ñaar ci réew mi waaye nag am na ay tuuma yi nga xamante ni yëkkati nañ ko lal ko ci seen ndodd di wane ne ñu ngi doon yëngu ci wàllu njuuj njaaj wàllu li nga xamante ne moom lañ tuppe ci népotisme maanaam di jël seen i mbokk yeeg seen i jegeñaale yi di leen dugal ci nguur gi ak li nga xamante ne moom moo nekk jaay doole ci réew mi muy dictatorship naka noon it APRC parti bi nag ñàkk nañ nguur gi ci atum 2016 ci presidential election si nga xamante ne def nañ ko fii ci biir réew mi ba gis ne président Adama Barrow nag am na ndam falu président aadama Barrow nguuram gi nag fa jaar ñu daal di nangu alal bi nga xamante ne rek nguuru former président bi di jaame amoon nañ ko ci réew mi rawatina moom jaame ci boppam ak partem bi moom fa président bi di jaame sax fa la jaar bàyyi réew mi dem toogee ci réewu Equatorial Guinée interim leader bu APRC parti bi di Fabakary Tombong Jatta wax na ne nag justice minister bi mu di honorable Bah Tambadou nekk na jëwriñ boo xamante ne nii dafay yàq ci biir réew mi te am na ñaawtee fi nga xamante ne def na ko loolu nag waral na dafa war a tekki am ndombal tànkam ndaxte bokk na ci ñaawteef fi nga xamante ne Baatam du def na ko mooy anam bi nga xamante ne moom lañ jaayee alal bi nga xamante ne moom la former président bi di Jammeh moom fii ci biir réew mi te loolu nag àndul ak sartaluwaay yi ak yeneen i ñaawteef yi nga xamante ne rek gis nañ ne joorin bi def na ko fii ci réew mi moom Fabakary Tombong jaata nag mu daanelee ay kàddoom ci li nga xamante ne moom moo nekk TRRC bi mu di Truth Reconciliation and Reparation Commission bi muy wane nag jamono ji kóolute la nit ñi amatul ci ñoom ndaxte ñu ngi fexe di def seen kéemtulaay kàttan pour gis ne képp kuñ xam dinañ ko indi ci kanamu commission bi pour mu sosal former président bi di Jammeh muy xamle ne nag Bah Tambadou nekk na koo xamante ne ni baaxul ci réew mi te buñ ko bàyyee ci réew mi nag mun naa indi réew mi ay jafe-jafe ba waral nag mu ne baatam bi du ci boppam dafa war a tekki ab nombal tànkam joxe lenge yi nga xamante ne moom lañ ko dénk ci nguuru réew mi Seydou Camara Star TV News. Human Rights Commission bu Gambia ñoom nag ni ki tey jëlee nag ñoom génte nañ seen report bi nga xam ne nag wane ne tënk nañ ko ba pare report bi nag atum 2019 na woon maanaam at bele weesu foofu nag jot jot nañ koy jotali nguur gi nag ñu daal di tudd ay cases yi nga xam jàpp ne ne human rights violation cases la maanaam ay nit ñi nga xam ne dañoo yàq seen àq ak seen yelleef fii ci bureau mi lu toll si eh, juróom-ñeent fukk ak benn ci ay case nag lañ tudd ci li nga xam ne nag moom moo di eh, report booba waaye tamit nag def nañ si ay dogal maanaam daal beneen seen xalaat si ay dogal yi nga xam ne dañ ko àggee nguur gi ci euh, euh, yenn ci ay nit ñi nga xam ne yàq nañ si seen ak ak yelleef nag ci réew Gambia daara ci am dañuy seeti si report boobu mu àndi si yaatal National Human Rights Commission mu doon ñi nga xamante nag ñi ngi yëngatu ci wàllum xeexum àq ak yelleefu doomu aadama fii ci biir réew mi daal di nañu rek wax ne am na ab report bi nga xamante nak eggee neen ko foofa ca National Assembly ba de pencum ndawi réew ma su ko defee ñi daal di ci def ay gestu bokk ci itamit nag mooy seen yëngu-yëngu yi nga xamante nag ñu ngi ko doon def ci atum 2019 te itamit nag li nga xamante nag mooy seen taxawaay fii ci biir réew mi bokk na itamit nag ci wàllum politique ci wàllum booloo ak tamit doon benn ci wàllum xeexum ak ak yelleefu doomu aadama ak képp koo xam ne rek mu ngi ci biir réew mi ci li nga xamante nag mooy jafe-jafe yi ngay jànkuwante wante nga leen dee faral di dem waxtaan ak ñoom su ko defee ñu daal di ci def ay jéego li yëpp doon na seen yëngu-yëngu yi nga xamante nag ñu ngi koy def fii fii ci biir réew mi si seeni waxtaan bi nga xamante nag séqa neen koy taskati xibaar yi fii ci biir réew mi ni ki tey nag bokk ci seeni leeral bi nga xamante nag ñu ngi koy leeral ci lii di xibaar yu tasaaroo fii ci biir réew mi ci wàllum kàddu yi nga xamante nag ñoom wax neen ko jëmale ko ci wàllum góor ak góor daal di war a mën a sëy fii ci biir réew mi wala itamit nag jigéen ak jigéen daal di war a mën a sëy fii ci biir réew mi ñoom nag dàqalu neen kàddu yi nga xamante nag lu ci bëri ci ñoom ñi nga xamante nag ñoo koy tasaare ñi ngi wax ne li nga xamante nag mooy mbir mi daal National Human Rights Commission dafa mel ni den bugga nguur gi mu daal di nangu li li mel fii ci biir réew mi waaye nag ñoom daal nañu ko rek dàqalu di wax ne ñoom sañu taxaw taxawaay muy pour daal di xeex ak ak yelleefu doomu aadama waaye nekkut ne euh, pour di daal di a mun a ekkati ay loi di ko teg euh, ci taabul bi pour lii di nguur gi mu daal di ko nangu waaye tamit nag ñoom euh, xeex lii di ak ak yelleefu doomu aadama moo leen tax a jóg kon nag ñoom lu ñu wax rek mooy pour ñi sàmm lii di ak ak yelleefu doomu aadama ñi nga xamante nag ñi ngi fi fii ci biir réew mi te bëgg a yëngatu ci li li mel waaye nag waxun ne pour li nga xamante nag mooy nguur gi war ne noo war mun a nangu pour loolu mu daal di war a mun a am fii ci biir réew mi li nga xamante nag mooy góor ak góor ñiy seq dara fii ci biir réew mi wala itamit nag jigéen ak jigéen ñi daal di war a mun a sëy fii ci biir réew mi. lii nag nit ki tey lañ doon def leeral bi ci ab press conference bi nga xamante nag ñu ngi ko doon def foofu ci seen office ba nekkootu daadu Thiam Star TV. fukki fan yi ak ñeent yi ci weeru juun at bu ne dañ ko dee faral di màggal ci àdduna war nga képp doon boo xam ne dañ ko jël uh, daal uh, ñi nga xam ne dañuy seetu wàllu wér-gu-yaram bi àdduna war nga képp ak itamit nag uh, ñi nga ñooy kuréel yëpp nag jàpp ne ne bés boobu doon na bés ne dañ ko jagleel wàllu maye deret nag àdduna war nga képp di World Blood Donor Day wane nag ren lu li mel nag Gambia Forces nag màggal nañ ko ndaxte nag ki nga xam ne nag kooku moo jiite ci réew mi ne Chief of Defence Staff bu Gambia Armed Forces joo général Yankuba Dramé moom nag wane na le daal dinañ génte nag maanaam dinañ tàmbali loo nag fii ci biir réew mi ndax soldat yi dinañ jóg pour mun a nag muccal bakkanu ñi nga xam ne dañoo soxla deret te tëdd ci lopitaan yi loolu daal ren nag dinañ ko que nag li ñoo ooyee nag ren euh, euh, save blood na daal loolu dañ koy tàmbali nag fii ci biir moo nekk slogan boo xam ne ren daal pare nañ koy def pour jël ay deret wala boog jël ay nit ñi nga xam ne da leen di yóbbu ci lopitaan yi pour nag ñu daal di euh, may ay deret mbokk yi seetu ñuy seetu ci report at bu ne fukki fan ak ñeneenti ci weeru june bés la bi nga xamante ne ni WHO mu di World Health Organisation bi ak réew yu nekk ci àdduna wërngël képp rawatina Gambia dañ ko dee faral di màggal ñu ràññee ko ne bés la bi nga xamante ne tuppee nañ ko ci li di World Blood Donor Day muy bés bi nga xamante dañ ciy faral di maye ay deret Gambia Armed Forces mu di soldaalu réew mi nag ñu ngi yëgal askan wi ci njiitalu Chief of Defence Staff mu di Major General Yankuba Dramé am na li nga xamante ne tàmbali nañ ko ci réew mi ñu tuppee ko ci blood donation drive pour daal di jaarale ay deret nag àggee ko lopitaan yi nga xamante ne ñoo nekkee fii ci biir réew mi pour aar bakkan yi ndaxte dañoo am gëm-gëm bi ne buñ dencee deret daal dina am ay bakkan yi nga xamante ne dinañ ko aar ci réew mi lu waral nag jéego yu rafet yi mooy pour dimbale ñi nga xamante ne ñoo nekk Ministry of Health and Social Welfare mooy bunt bu yore lu aju ci wàllu paj mi ak wérgu yaram gi pour ñu am deret yu doy ci réew mi pour bu fekkee ne nit ñi soxla nañ ko rawatina nag lu jëm ci wàllu emergency waral na officers yi soldats yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Gambia Armed Forces ci military installations yu nekk fii ci biir réew mi yëpp maanaam seeni maakaan yi nekk ci réew mi tàmbalee ko Banjul ba Basse dinañ daal di def li nga xamante ne moom moo nekk blood donation maanaam ñëw maye ab deret may deret booba nag ki nga xamante ne moo nekk ministre bu dénk lu aju ci wàllu kaaraangi réew mi mu di ministre of defence honorable Cheikh Omar Faye dina ko teewe te nag dina tàmbali ndikki ndiki ajuma fukki fan ak ñaari ci weeru juin atum 2020 juróom-ñeenti waxtu yi ci suba dinañ ko defee foofale ci Edward Francis Small Teaching Hospital bu nekk ci capital bi di Banjul ak yeneen i lopitaan yi nga xamante rek moom la nguur gi am muy lopitaan yu mag yi nekk ci biir réew mi naka noonu it Gambia Armed Forces mu di soldaaru mi xamante ne am nañ ko fii ci biir réew mi tamit dinañ ko jëfandikoo su ko defee ñu daal di fa dajaloo maye deret béréb yi nga xamante ne dinañ fa maye deret nag bokk na ci Edward Francis Small Teaching Hospital bu nekk ci capital bi di Banjul Defence Headquarters Joint Services Headquarters ak Gambia Navy foofa it ci Kanifing General Hospital bi Guards Battalion ak Gaaf Training School bi ñetteel bi mooy Brikama Major Health Center One Infantry Battalion bu nekk ca Yundum Barracks ñeneenteel bi nag mooy Buyam General Hospital bi four infantry battalion bu nekk foofa ca Kanilaay beneen bi mooy Farafenni General Hospital bi ak second infantry battalion bu nekk foofule ca Farafeñe SAO Health Center bi ak Njongoon military camp bi Bansang General Hospital bi ak Kudang ak Lamen Koto military barracks bi Basse Major Health Center bi ak Third Infantry Battalion bu nekk ca diwaanu Basse béréb yi yépp dinañ fa maye deret pour aar bakkan yi ci biir réew mi mu nekk jéego yi nga xamante ne soldaaru réew mi jël nañ ko nag ci njiitalu ki nga xamante ne rek moom moo nekk Chief of Defence Staff bu Gambia Armed Forces mu di Major General Yankuba Dramé Camara Star TV News ok sant ak yéen Seydou Camara ci euh, mujj euh, ci xibaar boobu rek ñu dem seet ji suñu mujjanteel xibaar bu waaju ci wàllu tàggat yaram Gambia euh, former Gambia international koo xam ne nag daf doon playal Gambia mu doon ndaanaan boo xam ne ràññee nañ ko moom kii di moom nag lañ daal di tànn daal di koy jox benn atum contrat boo xam ne daf koy jiite benn football club mu daal ko ràññee si Al na football la bi nekk foofu la ca Dubai ñoom nag si seconde division bi lañ nekk ñoom nag fu mu toll nii ñu ngi xeex pour mën a yegg si kaw bokk nag si jongante bi nga xam ne ko def seen ligue bu njëkk bi wane na fu mu club boobu Idrissa Sonko la gars yi pour naka mu égal leen ci division booba gannaaw bi nga xam naka jox nañ ko benn atum contract foofu la ca club booba ñu dem seeti ji Dado Thiam ci xibaar boobu football club bi ñi xamee ko ci Altawood mu bokk ci ñi nga xamante nag ñi ngi yëngatu ci wàllum football bi foofa ca Saudi Arabia rawatina na itamit nag ca Dubai ñii nag ñoo daal di eggale li nga xamante nag mooy ab contrat ci kii nga xamante nag mooy Idrissa Sonko su ko defee mu daal di jiite li nga xamante nag mooy seen fans club ci boppam ñi yëngatu ci wàllum tàggat yaram altawut nag bokk na ci ñi nga xamante nag ñoo gën a xarañ ci wàllum football bi foofa ca Saudi rawatina nag ci yeneen ñi réew ci fi nga xamante nag mooy Burinda ci wàllum Saudi Professional League bi nag ñoom ñi nga xamante ne ñooy Al Tawut xaral nañ ci lool ba itamit nag am na ndam yu bëri yi nga xamante nag daal dinañu ko rek enu rawatina nag ci King Cup ñoom Al Tawut dendee faral di jongante ci wàllum li nga xamante nag mooy football bi si seeni réew ak itamit nag ci yeneen yi réew àdduna wërngal képp rawatina nag ci li nga xamante nag mooy jongante buy am ci lii di stadium bu ñu xamee ci King Abdullah Sport City Stadium te itamit nag dañ ko dee bokk ak ñeneen ñi club foofa ca Buraynda niki semaine bi nag moom Idrissa Sonko daal di nañu ko rek eggale ci ab li nga xamante nag mooy toogaay pour mu yokk li nga xamante nag mooy xam-xamam ak tamit nag lii di xarañam ci lii di club di Al Tawud bile tey tamit nag dafay jiite li nga xamante nag mooy club bi walsal ak yeneen yi lii di fans club yi nga xamante nak daal na ci jongante Dado Thiam Star TV mbokk yi loolu moo nekkoon sunu mujjëndale xibaar ci réew mi rek su ko defee dañuy jàll dem seeti xibaaru bitti réew yi fañ koy tàmbale euh, mooy nag football ca Central African Republic fi nga xam wane ne daal mandat wu président bi duñ ko yokkaat ngir nag seen élection bi nag dañ ko amale leen ba tax opposition bi ak i constitutional ko bi wane ne ko bi daal fu mu am foofule ca lii di Central dogal boobu nag mu ngi bàyyeekoo ci constitutional euh, code bi nekk foofule ca Bangui ñoom nag

réew mooma loolu bu waree am sax foog demaat nag si pencandoo réew ma ñu daal koy càmbar foofa waaye nag constitutionnel code bi nag si wane ne ne daal ah, ah, i président bi wane dogal boobu nga xam def nañ ko ñoom daal dañ ko dañ ci bett bu baax a parce que ñu ne loolu waroon see mën a sóoraale ñeneen nit ñu bari nga xam ñoom ñoo nekk nag ci lii di ah, booba ndax naka dañoo war na yokk mandat président bi su ko defee ñu mën a dàqalu xeex li nga xam

seen réew euh, foofu la nag ren nag tund Afrique nag ñu ne dëkk yu bëri war nañoo mën a def li nga xam ne nag moom mooy élection Togo ñoom defoon nañ seen élection depuis weeru février balaa jàngoro bi di door dëkk yu mel ni Burundi ñoom itamit nag def nañ seen élection mais waaye tamit nag dëkk yu mel ni Malawi ñoom itamit ñu ngi si waajtaay bu baax a baax dëkk yu mel ni Niger Ivory Coast Ghana Tanzania ñi yëpp nag ren war nañoo mën a def seen élection te ñoom itamit nag ñu ngi si waajtaay foofu la Central African Republic ñi nga xam ne jot nañ fa am jàngoro corona bi toll na si junne juróom-ñetti téeméer juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti nit waaye ci loolu juróomi nit ñoom ñoo si daal di faatu euh, euh, lu toll si euh, fanweer ak juróom-ñett ci ay nit ñoom ñoo daal di faju ñi nga xam ne ñoom ñoo tëdd si lopitaan yi ngi toll si junne juróom-ñetti téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom si nit ñoom ñoo am jàngoro bi tëdd ak moom ci lopitaan yi fu fu mu toll ni le mbokk yi nguuru Tanzania bi nag ñoom euh, dem nemmeeku opposition leader bi nga xam ne nag ko tëddal ci lopitaan bi maanaam daal opposition bi am na ci kenn bu ko gay attaqué nag ñu tëddal ci lopitaan bi nguur gi nag jóg nañ dem daal euh, nemmeeku kooka prime minister bi nag euh, moo doxantu dem ba ci lopitaan bi dem fekki foofu ki nga xam ne nag kooku moo bi ñu ooyee Chadema ñu gën ko daañ si moom kii di Freeman Mbowe Freeman Mbowe nag ñu ne dañ koo attaque ñi ko attaque doon xaar si mbedda yi gannaaw bi nga xam ne dellu dem si capital bi nag di Dodoma ah, nguur gi ñoom def si seen taxawaay waaye nag taxawaay opposition bi nag ñu ngi ñaawlu attaque boobu nga xam ko parce que ñoom jàpp ne lii yëpp politique moom moo di waral ah, John Magafuli ah, doon na koo ne ci nguuram ki koy gën a ŋàññi saa yu nekk nag bokk na si ne moom mooy kii di Freeman boobu Freeman boobu nag lañ daal di tëdda ci l'hôpital waaye taxul nguur dem nañ pour suñu mujjandeel xibaar euh, foofu la ca bitim réew dinañ dem seddi ji nag euh, jamono ji la tund Afrique ci boppam jàngoro corona bi nag na mu sonale li nga xam nag moom mooy réew Afrique yi euh, statistiques yi maanaam ci xayma yi am def nañ ko ñu ne léegi daal ñi am jàngoro bi nag fële ci tund Afrique weesu nañ ñaari téeméeri junne ci ay nit tàmbale ko fukki fan yi nag ci weeru jun mooy wé ni ki bés ni ki démb nag alarba bi John Hopkins University di benn université bi nekk foofu la si Amérique ñoom nag ñu ne si seen ñu toll si ñaari téeméer ak ñaari junne ci ay nit Euh, juróom-ñetti euh, euh, ña juróom-ñetti téeméer juróom-benn fukk ak ñeent ci ay nit ñoom ñoo daal di am lii di jàngoro jo maanaam 2864 cases lañ am fii la ci tuuti Afrika benn tey nag ay nit juróomi téeméer fanweer ak juróom-ñeent ñoom ñoo ci daal di faatu lu ëpp ñeent fukki junne nit ñoom ñoo daal di faju ci lopitaan yi waaye nag dëkk bi ne moom moo ci daal di gën a sonn nag ñi nga ne gën nañoo am jàngoro ji mooy South Africa Égypte Nigeria Algeria Ghana Soudan Morocco ak Cameroun Euh, benn tey IGM nag wane ne daal ñoom ñoo daal di féetee kaw ci ñi nga xam ne nag faatu bu baax a baax ci jàngoro corona bi ndax lu toll si junne nit ñoom ñoo daal di faatu ci dëkk booba euh, South Africa nag ñoom a am ñi nga xam ne am nañ jàngoro corona bi mooy South Africa lu ëpp euh, juróom juróom fukk ak juróom ñaar maanaam juróom fukk ak ay nit ñaari junne nit am lii di bi IGM nag moom moo si daal fanweer ak ñette junne ci ay nit ñi ko am ñi nga xam nag am nañ jàngoro ji Algérie am fukki junne ñetti téeméer juróom fukk ak ñaar ci ay nit ñi nga nag am nañ ko gaana am fukki junne euh, euh, ñaari téeméer ak benn ci ay nit ñi nga am nañ lii di jàngoo corona bi jàngoro bi nag ba mu dooree foofu la sa China si dëkk bi ñëw Wuhan si atum 2019 boobu ba léegi na maanaam lëmb na adduna wërngal képp ba jàpp na ne daal jàngoro mbas la boo xam ne sonn na adduna wërngal képp eh, ñi nga xam ne nag faat nañ si jàngoro bi adduna wërngal képp ëpp nañ ñeenti eh, eh, téeméeri junne ci ay nit ñoo xam ne nag am nañ jafe-jafe waaye tamit faatu nañ ci li nga xam ne nag moom moo di jàngoro jooju mbokk yi loolu moo nekkoon suñu ma jëndee xibaar man Omar Tunkara ma ne ko doon àggee Aliou Tunkara moo nekk ci caméra bi Paul Steven Pereira moom moo teewal li di xibaar yi jërë ngeen